l'actu sur King FM. Mesdames, Messieurs, euh, bonjour. Voici les brèves que nous démarrons avec le Conseil euh, présidentiel euh, sénégalo-gambien. La deuxième édition s'ouvre ce jeudi. Les deux chefs d'État voisins feront le point sur la mise en œuvre des engagements pris dans des secteurs tels que la sécurité, les transports, la libre circulation des personnes et des biens, entre autres. La situation du Covid-19 au Sénégal, à ce stade, trois personnes sont atteintes, dont un Sénégalais, le premier cas autochtone, l'homme résident en Italie est arrivé le vendredi 6 mars au poste de santé de Daru Marnan à Touba où il a été diagnostiqué. Une opération de désinfection est menée quant au deuxième test annoncé hier sur la patiente britannique. Il est revenu euh, négatif. Cheikh si Silla, célèbre promoteur immobilier, disciple et bras droit de Sornay Aïda Diallo, croupi depuis vendredi dernier à la prison de Djourbel. Selon source à qui donne l'information, il a été arrêté pour escroquerie foncière euh, présumé portant sur 112 euh, parcelles à usage d'habitation à tout bas sur l'international aux États-Unis. Face au coronavirus, le président Donald Trump décide de suspendre à partir de ce vendredi tous les voyages en provenance de l'Union européenne, une mesure qui va durer 30 jours selon le président américain. Sport, huitième de finale Ligue européenne des champions, Liverpool de Sadio Mane est éliminé hier à domicile par l'Atlético Madrid. Pendant ce temps, Paris Saint-Germain d'Idrissa Gay est qualifié en quart de finale après avoir battu Dortmund par 2 buts à 0. Pour la musique du jour, nous vous proposons African Kin, un titre que Fata il présidenté, a dédié aux femmes sorties le 8 mars dernier. Écoutez, Olof de ses brèves, c'est dans un instant. yéen a ngi déglu King FM ci 99.4. xibaar yi tënk lay doon dañ koy tàmbalee conseil présidentiel sénégalo gambien tey ji naka la ñuy daal di uh, ubbi uh, ñaareelu édition bi ñaari njiiti réew yi nag jàppale ni dinañ def le point jëmale ko kon ci engagement yi nga xam te dañ ko daal di uh, jëloon loolu nag ci secteur yi ci mel ni wàllum kaaraange gi wàllum dem beek dikk bi ba ci kon yeneen i mbir ñu wax kon ci coronavirus beeg tolluwaay bi fii nii ci réewum Sénégal jàppale ni kon ñetti doomu aadama la ci daal di dal fi mu toll nii kenn sax nag ab bàyyee ko yegsi fii nii ci Sénégal kon ni ki aljuma bi ñu weesu ca poste de santé ba nekk ca Daaru Salaam bañ ko tegoon nag ca Touba jàppale ni jamono ji ñu ngi fay amal opération désinfection ngir daal di koy xoolaat bu fekkee nag lu jëm ci euh, doomu britannique bi mu daloon moom jàppale ni kooku mujjee na wér ci jàngoro jile di euh, coronavirus Cheikh Tidiane euh, Cheikh Thiani Sila moom ab promoteur immobilier la nekk tamit ku jege lool soxna Aïda Diallo jàppale ni aju maag léegi mi ngi ba nekk ca Diourbel li ko tax ñu teg ko loxo nag bu ñu sukkandikoo ci source a moo di ne wàllum njublang bu mu doon def jëmale ko ci ay parcelles yu nekk ca Touba ba jot cee kon euh, dëbb li njaalu tollu ci téeméer ak euh, fukk ak ñaari parcelles. wàllu biti réew yi te États-Unis jàpp leen ni jàngoro coronavirus tax na ba njiitu réew ma di Donald Trump daal di nay jël dogal ne bu kenn duggati ca réew ma wala nga génn euh, rawatina ñi nga xam si ñoo bokk ci Union européenne loolu nag nee na diirub fanweeri fan lay daal di euh, doon tàggat yaram huitième de finale Ligue européenne de champions Liverpool bu Sadio Mané daanu nan da toog nañ kon huitième de finale Atlético Madrid ñoo leen fekk démb seen dëkk dóor leen Paris Saint-Germain moom danoo dalal Dortmund dóor leen kon ñaari bal ci dara ba noppi qualifié quart de finale musique la ñuy jeexale tënku xibaar yi. tey ñu di leen woy bi ñu duppee African Queen euh, Fata El Presidente moo ko génne jaglele ko jigéen ñi juróom-ñetti fan ci weeru mars bi ñu weesu. mi noonu mbokk yi lii tënk la woon ci xibaar yeneen tënku xibaar 8h30 Al Ndiaye mooy wéyal léegi comme the morning kii.